Sidi Diop di première expérience am fii au Grand Théâtre est-ce que c'était pas évident que mu xooloon lu gën a comme Deme Sorano wala du genre. Euh, je pense que Grand Théâtre bi euh, échauffement la rek quoi ci moom parce que euh, moom comme li may wax rek moom seenu Grand Théâtre rek seenu Sorano ou seenu beneen seen moom. moom yëpp benn la ci moom. mais dañu gis ci côté ci côté créativité souvent ay imitation la gën a nekk à l'aise yow mi nga xam ne arrangeur nga euh, naka ngeen ko liggéey ba mu mën a euh, def album bu mel noonu. waaw bon euh, je pense que nit ñi bu nu déglu albumu Sidy bu bees bi dinañu gis ni il a il évolué changé nanu yenn façon de chant ni muy chanter et consort parce que xam nga moom. dafa di chanteur boo xam ne day chanter ci feeling donc yàgg naa déglu benn Njaga Mbay yàgg déglu Pape Diouf yàgg déglu benn Waly Seck yàgg déglu Mapenda yàgg déglu Ndongolo donc dafa di chanteur boo xam ne même ay Assane Gueye yi sax damay toog bi si yàgg rek mu woy benn kii ma xam ni yàgg na déglu artist yëpp bon ci départam loolu moo doon ay filingam mais nag buy màgg loolu yëpp daf koy teggi teg ko fële commencé nag ay wéyam boo dégloo nag ci album bi tu vas découvrir vraiment des titres yoo xam ne c'est ses propres compositions donc mu woy leneen loo xam ne du ay woyu jàmbur. dañu gis ne Papis souvent day maanaam day sonn ci jeune talent yi mais toujours au finish day mel ni Papis du ci am lu ko lu ko neex daal soit que xale bi après day dem découvrir leen wala xëy ne mu dem euh, peut-être baat bi bañ a diis wor wala nangam ba finalement. bon euh, ku nekk ak euh, sa sa yoon daal ci ci ci musique xam nga man duma ci taay. même bu amee sax fin yoo xam ne neexul mais du tee damay jógaat encore puusaat parce que du artiste bi moom a tax a jóg mais musique sénégalaise moom a tax a jóg dama bëgg mu leer donc xam nga tey bu ma nekkee par exemple ak benn ndongolo mu dem bon euh, ba vraiment mu nekk ci foo xam ne lépp lu moo waroon a neex daal Euh, mu décédé dina ma metti trop bu ma temee après monté ku mel ni benn euh, génération consciente ak Pape Diouf liggéey ak moom durant ay dix ans onze ans bon yàlla tudd aussi ni jeex na xam nga loo gis rek yàlla moo koy tudd mais nangul man aw ma benn problème avec personna ah. mais damay nangu nii foofu noonu la ko yàlla tuddee mais du empêcher ma toog mais dama dama am sama yeneen activité quoi lu dul lu dul loolu donc du ma ci focaliser trop quoi yàlla tudd na ko mais ñoom ñu ngi dox seen yoon man maa ngi dox sama yoon mais n'empêche que tey beneen jeune jóg na tey bu may liggéey ak moom aussi nit ñi dinañu gis évolution parce que loolu moo ma intéressé c'est dans la musique sénégalaise et puis bon bu ma demee aussi ba ci kanam nit ñi dina xam ni au moins defal naa jeune bi dara résultat bi rek moo ci compté après na bu continuer moom it ak yoonam xam nga ma nit ma nekkaat ci leneen. <laughs>